Ahmed ndax xam nga ni boo deewee sa alal doo ko yóbbaale sa bàmmeel de si xam naa ko kay mais nan laay def sama alal di ma fekk sama bàmmeel da ngay def sadaxa jaariya maanaam sarax bu dagg xanaa xamoo benn boo xamante nii mën naa fa dugal sama alal suñu xaadim Njaay Rachid taxawal na institut bu mag boo xamante nii jullit ñi ñoo ko moom maanaam waqfu la ngir doomu jullit ñi mokkal alquran bëgg a yeggale seen jàngum diine institut bi ni bëgg nga see dugal dërëm wala sa ñaar dërëm mën nga koo dugal moo xam Wave wala Orange Money nga jaarale ko ci numéro bii 78 660 56 38 ci turu bu dee Ria wala Western Union wala MoneyGram mën nga koo jaarale ci numéro bii tamit muy 78 389 36 32 ci turu Khadim Ndiaye bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin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 sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma baad يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yutic illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan cazima يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار mbokk yi noo ngi leen di uh, nuyu nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di fas yéene tàbbi ci liggéey boo xam ne liggéey bu woroom xam-xami lislaam yi jox yitte la te mooy dundug yonente bi sallallahu alayhi wa kenn ngi ni koo xam ne ab sët la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy ali ibn al doom la ci ab sët ndax al xusayn doomi soxna fatima la doomam dañuy wax ali daan wax ne kunna nuallam kunna nuallamu magaasiya nabi sallallahu alayhi wa sallam kama nuallamu suura min al quran nun day dannu dan dannu daan jàngal xeex yi nga xam ne xare yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf koo xare nit ñu daan jàngale aw saar alxuraan nga xam ne ni niñ leen daan yittewoo di leen jàngal alxuraan noonu lañ daan yittewoo di leen ko jàngale dundug yonent bi sallallahu alayhi wa da caa jukki rek xare yi nga xam ne doon na ko xare loolu alxatibul bagdaadi ci aljaamiu li axlaaqi raawi wa aadaabi saami indi na ko alimaamu zuhri rahimahullahu taala day wax ne fi ilmi almagazi ilmu wa dunia maanaam xam jaloore yi nga xam ne moom la xare yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga caa jëlee xam-xamu àllaaxira mën nga caa jëlee xam àddina ibnul wax ne raaytu lishtigala bilfiqhi wa samaai alxadis laa yakaadu yakfi fi salahi alqalb illa an yumzaja biraqaiqi wannazari fi siyari salafi saalih nee na gis naa ne jël sa yite yëpp jox ko xam-xamu fiq ci wàllu ay atte ak sax di diglu xadis gis naa ne loolu doyut ci xol bi mel nam war a mel ci ak mbaax lu may dañ caa jaxase nag yoo xam ne day tooyal xol jaxase ca dunduk ñu baax ña mag ñu baax ña xam ngeen dunduk mag ñu baax ña mi ngi tàmbalee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sufyaan Sufyaanum nu Uyayna daana wax rahimahullah naan inda dikri saalihiina tanzilu rahma buñ dee waxtaane ñu baax ñi yërmaande yàlla subhaanahu wa day wàcc loolu a waxin la woo xam ne ma dis na koo dégg bu baax ndax ñu baax ñooñu daa bokk ci yërmaande yàlla mooy mu indi leen ci kaw suuf nga xam ne buñ leen dee waxtaane da ngay yeesaat peq xamaat fooy teg sa tànk ah asalafu saalix nag ka nekk ca bopp ba moo di yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax ubaydullahi ibnu utba rahimahullah da daan melal jataayu abdullah ibnu abbas di wax ne wala laqad kunna naxduru indahu fa yuxaddisuna al-ashiyata kullaha fi lmagazi daanañu teew ci jataayu ibnu abbas mu nuy waxtaanal ci ngoon yi ngoon yépp daanaka waxtaan waa ngay jëm ci xeex yi nga xam ne xare yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa da ko daan xare ibnu abbas dafa amoon jataay boo xam ne loolu la ko jagleel mooy jàngale almaghazi ibnu xasm rahimahullahu taala day wax ne dundiinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day koo xam ne xam na ko di ko seetantal daanaka dana ko doy mu dëggal ne kii yàlla ko yónni da ak du am sax lu mu ciy werante nee na yonent yàlla xam bu amutoon genn kiimtaan gudul aw dundiinam rek loolu rek doyoon na ko sëkk ibnu qayim rahimahullahu taala day wax ne wa min huna taalamu wa min huna taalamu tira taalamu taalamu tiraar al abdi fawqa kulli daruratin ila maarifati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaa bihi wa tasdiquhu fi ma axbara wa taatuhu fi ma amara fa innahu la sabila ila alsaadati walfalaxi la fi dunia wala fi l axira illa ala aydi rusul wa ida kanat saadatu labdi fi daarayni muallaqatan bi hadiyi nabi sal allahu alayhi wa sallam fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahaba najataha wa saadataha an yacrifa min hadiyihi wa siratihi wa sha'nihi ma yaxruju bihi an iljahilina bi wa yadxulu fi cidaadi atbaacihi wa shiicatihi wa xizbihi wannaasu fi hada bayna muqillin wa mustakthirin wa mahrum walfadlu biyadi llahi yutihi man yashaa wallahu dul fadl azim ibnu qayyim rahimahullahu taala day wax ne fii nag ngay xame ne ab jaam mënul ñàkk xam yonent yàlla muhammad ak limu indi ab jaam mën la ñàkk xam yonent yàlla muhammad ak li mu indi waaye dëggal ko ci li muy xibaar waaye topp ko ci li digle nee na amul wenn yoon woo xam ne mën na laa yóbbu jik texe moo xam àddina la moo xam àllaaxira la lu may rek dangaa jaar ci yonante yi nee na su fekkee ne texeg ab jaam àddina ak alaaxira yàlla nga ko aj ci mu xam dundinu yonent yàlla mu Muhammad kon na képp koo xam ne nga bëgg a laabiire sa bopp te bëgg sa bakkan mucc war ngaa xam dunduk yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba génn ci ñi nga xam ne dañ koo réere am na ñoo xam ne ñi ngi dund waaye xamuñu dara ci dunduk ki nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñoom war góor góorgóorlu ba bokk ci ñi nga xam ne cib lam la leen yàllay boole ndax xam guñ xam ki ñuy topp kan la mu daal di ci teg nit ñi nag dañ cee tolloowut am na ci koo xam ne mu ci am bariwut am na ci koo xam ne mu ci am bari na am na ci ko xam ne koo far xañ benn yoon am na koo xam ne na mu góorgóorloo ba xam eh, jëmm moo xam ku baax la wala sax muy safaan nam góorgóorloo ba xam dundiinu kooka moo gën a xóot nam xamee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax du ci xam dara ibnu kathir rahimahullahu taala ci téere bi mu tuddee assiratu wa shamail day wax ne wa hada al fannu mimma yanbaghi li'tinaau bihi wal i'tibaaru bi amrihi wa tahayyu ila nee na fànn gii nii bokk na ci fànn yi nga xam dañ ko war a jox yitte waaye dañoo war a bàyyi xel fànn gi bu baax a baax mbokk yi dundiinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man ngaa wax ne bépp yonante boo xam ne yàlla mas na koo yónni ni yonent yàlla Muhammad dunde moo gën a yaatu ca lañ ca mën a jële ci ay bind lañ ca mën a watte ci ay meññant ni beneen yonente dunde mboorum doomu aadama kenn mësu caa tuxal dundin wu mel ne dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund ko xam daa dell ak ay bind fees dell ak ay waaru yu ñu mën a waaroo dundinam xelam mu mat sëkk jikkoom ju rafet ak li muy woote ni mu doone lu wér loola rek xam ko maanaam doy na sëkk ci woote ci lislaam ñu bëree bari ba ñu demee ba xam dundinu yonent yàlla Muhammad lañ jubbantikuwaat xam ne ndekete kat kii ni mu dunde dundin wu wuute ak moom wu nekk rek du aw dundin wu jag yonent yàlla Muhammad ci la yàlla ubbee gët yoo xam ne dañoo gumba woon ñu daal di tàmbalee gis nopp yoo xam ne dañoo tëxoon ñu daal di tàmbalee dégg xol yoo xam dañoo tëju woon ñu daal tàmbalee xellu nga xam ne xel mi day liggéey wax ji noona jëf ja noona ci bu fekkee ne xam nga ci nga xam ne moom ngay topp Ibn Taymiyya rahimahullahu taala day wax ne wa man istaqraa a al aalam tabayyana lahu anna allaha lam yunim ala ahli l ardi nicmatan azama min incaamihi bi irsaalihi mu ne ku topp addina bi ni muy doxee xam addina xam biri ni muy tëddee da am lu la wóor ci ne yàlla mësta defal waa suuf xéewal gu gën a rëy yónni gim leen yónne alayhi wa doy na sëkk ngir leeral aw dundinam ni ko yàlla sa melale yàlla dane ko wa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg jikko ju tedd ju màgg nga yor te loolu xam ngeen ne ngir nun nu man koo xam faaw delluwaat ci siiraam xam naka la dunde woon ay jikkoom abdullah ibnu salaam radiallahu anhu day wax ne yàlla bindul mbindeef mu gën a tedd muhammad alayhi salaatu wasalaam maa xalaqa llaahu xalqan akrama alayhi min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne da koy topp neexal ba mu cay jëlee mooy yàlla da koy bëgg borom bi nee na su ngeen bëggee yàlla da ngeen di topp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg leen loolu da ko ko wax loo ne ko qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah neel nit ñi bu ngeen bëggee yàlla bu ngeen dee woote ne da ngeen a bëgg yàlla da ngeen may topp yàlla bëgg leen jéggaleen seeni bàkkaar koo xam ne topp ko mooy ak gindeeku topp ko mooy ak texe alxuraan nee na wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen gindeeku borom bi nee na wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan aziman koo xam ne topp na yàlla ak ndawam la texe na texe goo xam ne gu rëy la doo gis mukk teggin yoo xam ne gën naa rëy teggin ya nekkoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doo gis moos jikko joo xam ne gën naa tedd jikko ja nekkoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku yàlla bëgg a dimbale lim lay njëkk a dimbalee mooy xamal la dundiinu alayhi salaatu wa salaam ngir nga mën caa jële loo mën a dunde ci ay jikko képp koo xam ne yaa ngi koy roy xam nam doon dunde sa xool fees dell ci bëgg gi nga koy bëgg loola da ci ame texeg àddina ak goog àllaaxira kon moom yónni gi ko yàlla yónni rek yàlla leeral gi mu leeral na yërmaande la daa waroon tax kenn ku ne yittewu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yoon wi nga xam ne ca la jaar boo ca jaaree dangay ngay mucc ci ak jeng wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim la ko yàlla wax yow day yaa ngi gindi nit ñi jëme ci yoon waxanu jub xoccu la borom bi itam dellu waxan ne ko fa tawakkal ala allah innaka ala alxaqil mubin wéerul ci yàlla ndax yaa ngi ci dëgg gu leer nañ moom mooy sangub képp ko askaru ci maam aadama moom la ab baam meelam di njëkk a def tàcc moom mu génn mooy njëkk a mooy koo xam ne aw doj bëgg na ko anas nee na radiallahu anhu yénti yàlla muhammad bu masaana seen jabalu uxud day wax ne hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu lii de aw doj la woo xam ne daf noo bëgg nun tam bëgg nañ ko xadis boobu muttafaqun alayhi la mooy koo xam ne ab daat datub tàndrama dafa jeexitalu ci taxaw gum ca daan taxaw xam ngeen ne jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa bu masaana xutba day taxaw ci ab dat biñ ko liggéeyalee am minbar nag bam taxawee ca kaw minbar ba rek la dégg dat boobee mu jibal kàddu goo xam ne daa mel ne gëléem gu ëmb ba yonent yàlla Muhammad ñëw teg loxoom mu soog a dal alxasanul basri rahimahullah day wax ne ah yéen jaami yàlla yi bu dee aw dénk day mooy namm jëmmi yonent yàlla boo xam ne ma daan taxaw ngir am cofeel gu mu am cofeel ci moom kon yéen doomi aadama yéen a ci gën a yey moo tax su ko ma saan wax rek ndeysaan day jooy mooy koo xam ne gëleem sujjóot na ci kanamam gëléem sujjóot na ci ci kanamam sajada bayna yadayhi ba'iir loola nu mu demee Anas ibnu Malik nee na ñun dañoo amoon gëléem goo xam ne ci lañ daan wute ndox gëléem ga nag xëy-xëy rek nangootul kenn ko ko war lamsaar yi ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nun day amoon nan gëléem goo xam ne buñ masaan di wut ndox moom lañ daan jëfandikoo waaye léegi nangootul kenn ko ko war te mbay mi wax dëgg yàlla mar na lool tàndarma yi itam mar na lool yonente bi alayhi salaatu salaam wax saxaaba mi ne leen jug leen ñoom ñëpp ñu jug mu dugg ci tool bi gëléem gi mi ngi ci wetam mu dox jëm ci ak wàllam lansaar yi ne ko yaa rasulallah moytul moytul gëléem gi daa wex xat dañuy dañuy ragal rek mu dal ci sa kaw mu daal ne ah laysa alayya minu baas moom day bu ngeen amee lu ngeen di ragal euh, yàlla mën naa def danaa ci mucc man bi mu ba xool gëléem gi gëléem gi dafa rot sujjóot ci kanamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci ay càmbaanam ba dugal ko ci liggéey ba nga xam ne da koo bàyyi woon saxaaba yi ne ko yaa nabiyallah lii bàyyi ma la joo xam ne amutum xel dila la sujootal te nun danoo amum xel ndax nun gën nooyee ci di la sujootal mu daan ne déedéet mbindeef du sujootal mbindeef su amoon mbindeef mu saña sujootal mbindeef kon jigéen lay doon ci sujootal boroom këram ngir àq jure ji nga xam ne ameel na ko xadis boobu alimaam ahmad indi na ko ci musnadam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëléem jooy na ba ay ronkoñam génn di ko jàmbat Abdullah ibn Jaafar nee na yonent yàlla Muhammad daa war barkeel la mu wax daa di may togg ca ginnaaw ñu dugg ci ab lakk boo xam ne kenn ci lansaar yi moo moom ñu fekk fa gëléem goo xam ne yonent yàlla Muhammad da koo xool rek gis ne ronkoñ jaa ngay xémbu xémbi mu daal di ñëw laal li ñu wax zifraahu mooy njaw ci ker nopp gi mu laa di fay laal ak gannaaw gi mu mel ne daa bàyyi ronkooñ yi nga xam ni moom la doon sotti yénti yàlla Muhammad daa ne man rab man rabbu haadal jamal gëlëm gi ko moom wenn waxambaane jóg ne ko man moom mu ne ko ragalal yàlla gëlëm gi nga xam ne yàlla sama moo la ko jox mi ngi may jàmbat nee na da koy xiifal nee na itam da ngay tukki ci moom tukki bu metti lool xadis boobu imaam ahmad ba tey génn ko fii musnadihi eh, di tekki ne yërmaana jure ji nekkoon ci moom tax na gëléem sax bu amee lu ko metti ci boroom ma nga koy jàmbat am na ab xasab bob gàtt boo xam ne dañ koo posone bañ ko posone loolu mi ngi amoon ci xasootu xaybar genn jigéen joo xam ne daa laaj lan la yonte yàlla Muhammad gën a bëgg ci aw yàpp ñu wax ko mu daal cey def bu bëree bëri naka yonte yàlla Muhammad yëkkati rek maanaa jëmmi xasab bi ci boppam moo ko xamal ne ko man dañ maa tooke man dañ maa tooke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam garab nee na sojjate fam saxoon ñëw fekk si ko fi nga xam ne fi nekk eh, ana loola lu muy tekki mooy nangul gi ko jamaa yi nangul jaabir ibnu abdillah radiallahu anhuma nee na danoo ànd ak yonti yàlla muhammad ba agsi aw yaatu yonti yàlla muhammad di faj aajoom nee na ma topp ko ak guttum ndox yonent yàlla Muhammad xool xool xool loo xam dana ci mën a làqatu ndax te xam nga boo masaan di dem àll da benn nekk ci ginnaaw ngeer wala ginnaaw garab mu xool xool xool xool gisut loo xam ne dana ci mën a surlawu fekk am na ñaari garab yoo xam ne ñu ngi woon ci pegg xur wi yonent yàlla Muhammad dem ca benn ba daal di buddi benn bànqaas fa axada bi guslin min aghsaaniha fa qaala inqaadi alayya bi idnillah daan may topp garab gi ne sojjat ànd ak moom mel na gëléem goo xam danga jël ab ak nos def ko ci bakkan bi nga xam ne ni muy àndee ak yow di dox mu indi ko bam sësëg geneen nga ca des ba nga xam ne léegi moom lim bëgg a def amul kenn ku ko mën a teg bët loolu ana lu muy tekki mooy ndegam bàyyi ma ya ndegam jamaa daadi ya ñoom ñoo koy bëggee noonu ñoo am ci moom cofeel gu tol noonu kon moom nun nun war a def nun ñi nga xam ne ay woroomi xel lañ ñun ñi nga xam ne ay woroomi yëg-yëg lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ko ne moo la gën a sañ ci sa kenn ku ne moo la ëpp sañ-sañ ci sa bopp alxuraan ne na an nabiyu awla bil muminina min anfusihim amoo sañ-sañ bu toll ne bi mu am ci yow sañ-sañ bi mu am ci yow moo gën a rey bi nga xam ne am nga ci sa bopp kon su la sa bakkan wooyee sa sab yonente woola demal nga wuyu ji sab yonent topp gi koy topp ak bëgg koy bëgg mooy jaamu yàlla gi gën a rëy sallallahu alayhi wa sallam nee na almaru ma man ahabba nit ku nekk yàlla dalay boole ka nga bëgg woon bi ngay nekk àddina saxaaba yi nee nañ ni ko anas waxe mbégte mi am keroog bi yonte yàlla Muhammad waxee ne almaru maa man ahabba mosuñoo am mbégte mu toll noonu xam du dundinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf lay dimbale ci xam alquranul karim saa yoo xamee ne yaa ngi jàng alquran da ngay gën a bëgg yonent yàlla Muhammad da nga koy gën a màggal ci sa xol danga koy gën a wekk ndax dundam gépp ngir yàlla la dundam gépp jihaad la ci jot li kàddu yàlla dundam gépp leeral njuumte la ak wane ak njub xeex ak noonu yàlla yi la laataa muy génn àddina li mu waroon a jotli lépp jotli na ko ba lu ëpp téeméeri junni ci ay saxaaba taxaw nañ ci pàkk bu arafa ñoom ñëpp ñu nangul ko ne ko li nga waroon a def lépp def nga ko moo tax saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa dañ daan góor-góorlu daan njëkkantu ci tuxal dundiinu yonent yàlla muhammad nam dundune ja bu nekk ca jàkka ja nam doon dunde bu nekkee ca kër ga nam doon dunde bu nekkee ca tukki ba nam doon wootee ci yoonu yàlla nam doon jihaate loolu lépp saxaaba yi dañu ko tuxalal mbokk yi doomu aadama lu ay principe am rëy rëy rëy rëy rëy lu mag mag mag mag du tax mukk ñu doyloo jëmm ji ci wàllu roy lépp loo xam ne théorie la ak lu mu wér-wér mépp njàngale ak lu mu yéeme-yéeme maanaam mënta wecc koo xam ne day jëmmal njàngale ma boo bëggee xam ku jëmmal alquranul karim ci lépp loo xam ne alquran a koy digle ci lépp loo xam ne alquran a koy tere ñëwal nga xool jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa borom bi nee na qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittabaca ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min alzulumaati ila annuuri bi idni wa yahdihim ila siraatin mustaqim laay ji nga xam ne borom bi day wax ne ak leer bàyyi ko na leen ci yàlla am nañu ne nuur bi mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak téere boo xam ne bu bér la yàlla di ci gindee képp koo xam ne ma ngay topp ngërëmi borom bi subhanahu wa taala asira mooy balance bi nga xam ne boo bëggee xam jëfi bindee fii ndax jub na wala jubut ñëwal nga indi ko ci balance boobu ni ki nga xam ne boo ne ma lii kat kilo la wala nga ne ma lii kat liibar la faaw ma am lu may atteeg yow mooy ma am balance boo xam ne ci laa koy natte xam ba xam lii wér na wala wérut képp koo xam ne du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jëfam ngir ñu xam ba xam lu wér la wala du lu wér faaw ñu natt ko ci jëfi kan sallallahu alayhi wa sallam borom bi moom la wax ne laqad kaana lakum fi nun nag borom bi daf noo dimbalee alquran joo xam ne dan koy jàng ak siira boo xam ne dañu koy nettali mu bàyyi koo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne alquran lépp loo ci gis muy lu ñu war a jëfee lépp loo ci gis muy lu war a wax rek boo xoolee dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga fekk moo tax alxalifa rachid sayidna omar taxaw na di xutba benn bis ginnaaw bi sayidna abubakar génne àddina mu daal ne ginnaaw bi ma sante yàlla ba àggal maa ngi leen di xamal ne maanaam nun liñ dese mooy woote rek ak roy woote agroy rek lañ dese ndax ki waroon a wane wane ne ba àggal dundin woo xam ne nit dund na ko te bokkut ak dundu gu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu yoon nekkul ca dundin woowee nun li nu dese rek mooy di wooteel yàlla di wane yonente bi alayhi salaatu wa salaam mbokki jullit yi siira yonante bi alayhi salaatu wasalaam dafa daje dafa dajale ñeenti particularité muy ay jagle muy taarixiya jaamia kaamila amaliya dundiinu yonte yàlla muhammad lépp mboor da koo nettali mboor mooy histoire muy taarix dund la goo xam ne bàyyiwut dara nam doon dunde biir këram nam doon dunde ci biir saxaaba yi bu masaan di nekk ci tukki bu masaan a mer bu masaan a bég amut dara lu bàyyi te loola itam taarix dafa wane bu baax a baax wér gum wér waaye jaami ala dund gi mbooleem wàlli dund lépp da caa nekk soo bëggee xam nooy àndeeg sa soxna xoolal nam ànde woon ay soxnaam soo bëggee xam naka ngay àndeeg say doom xoolal na mu àndee woon ak i soo bëggee xam nooy àndeeg say surga xoolal na mu àndee woon na àndee woon ak surgaam soo bëggee xam nooy àndeeg say dar darmanko xoolal na mu àndee woon ak i darmankoom mooy saxaaba yi nga xam ne ñoo ko daroon ba noppi manko ci lépp loo xam ne lum leen di sant la waaye itam amaliya mooy amaliya mooy luñ mën a jëfee la dundug yonente bi sallallahu alayhi wa luñ mën a jëfe la loo xam ne dangay xam ne moom lii ak lii nekkutoon lu muy wax waaye lu mu doon jëfe la waaye lu mat sëkk la loo xam ne amu ci leen lu ci manqué loolu moo tax bu ngeen demee ngeen di jàng bu baax a baax dundiinu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da ngeen di gis bu baax ne dëgg-dëgg doomu aadama léeg-léeg yàlla sa borom matale ko noo xam ne mënu faa weesu te mooy ni matale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataay bii nga xam ne nag ci lañ bëgg a tàbbi jataay la boo xam ne jataayu fiqhu siira la jataayu fiqhu siira danaa ñëw ci baat boobu lan laa ci jublu mooy dundiinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yan bind lañ ca mën jële lan lañ ca lan lañ ca mën a bu ñu seetloo baatub alfiqhu li muy tekki mooy idraku shay'i wal ilmu bihi mooy mbir nga xam ko xamin wu leer nañ loolu mooy alfiqhu al ilmu bi shay'i wal fahmu loo am ci ak dégg bu ñu waxee lan mooy siira siira mooy aw doxiin mooy aw doxiin wala aw doxaliin aw doxaliin mooy ni nga doxale ni nga doxalee ci ni nga yore soxna ni nga doxalee ci ni ngay xare ni nga doxalee ci ni ngay léppe mooy asiira mi ngi bàyyi ko ci saara ye siiru siira mi ngi tegoo fi'la maanaa aw doxiin aw doxaliin mi ngi mel ne jilsa muy aw toogiin mbokk yi xam-xam yi nga xam ne dafa taqaloo ak xam-xamu siira nga xam ne saa yoo bëggee jàng siira faw nga jàngaale ko ay xam-xam la yoo xam ne xaw naa yaatu tuuti waaye benn ashamail benn xam-xam a ngi noonu lan la ashamail di jàngale xanaa melokaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jikkoom ay melokaanam mooy nan la meloon ci bindam ay noppam nu meloon bakkanam nu meloon gémmiñam nu meloon tànk ya nu meloon dënn ba nu meloon loolu ngay jàng ci li wax achamail achamail moo gën a xat siira ndax achamail benn jusu la ci siira ñaareel ba xam-xam yi nga xam daa aju ci siira mooy sunna sunna nag mooy lépp loo xam dañ koo askan la yonente bi sallallahu moo xam loola lu mu wax la wala lu jëf la wala luñ def ci kanamam lam mu bàyyi ko noona wala muy aw meloom moom loolu moo tax ngis ne diggante sunna ak siira xaw nañoo duggalante li ci gën a bari nag sunna day aju ci ay àtte ak ay pas-pas waaye li ci gën a bari sunna du dugg ci biir ay xew-xew yi daan xew ci ak dundam ak yu mel noonu doonte léeg mu jàngale ko ñetteel ba muy addalaa ilu wala addalailu nabawiya mooy màndarga yi nga xam ne day tegtale ne moom mii ku dëggu la day tegtale ne moom mii yàllaa ko yónni lu mel ne xarugu weer wi lu mel ne ndox mu doon ball ci ay loxoom nii mel ne bu robinet di xellin ndox mu bëree bëree bari am na ku ñuy wax alimaamul bayhaqi rahimahullahu taala taalif na ci téere bu mu tuddee dalailu dalailu nubuwa bokk na ci xam-xam yi aju ci siira itam mooy alxasaais mooy yi nga xam ne moom moo ko jagoo moom amul keneen koo xam ne sañ na ko caa fekk si lu mel ne takk lu ëpp ñeenti soxna loolu ñu bokk nekkandoo ci genn jamono loolu moom rek moo ko jagoo bokk na ci ñi bind ci alxasaais imam al imam suyuti rahimahullahu taala ci téere bi mu tuddee alxasaisul kubra nga xam ne Euh, boroom xam-xam yi dañoo ittewoo di jàngale loolu bañ xam ne lii moom moo ko jagoo moo jagoo jenn jigéen ñëw taxaw ci kanam ne ko may naa la sama bopp mu nangu ko te duñ dem di ko fas wamra'atan mu'mina in wahabat nafsaha linnabi in arada nabiyu ay yastankihaha borom bi ne ko loolu xaalisatan laka min dunil muminin loolu tam bokk na ci ay jagleem bokk na ci yi nga xam ne daa aju ci xam-xamu siira mooy mooy xeex yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajaa bokkoon nga xam ne benn ma nga ca biir jiite ko loolu la ñuy wax alxaswa amma bu dee asariya nag nga xam ne daa yónnee loola itam euh, mën nañ koo dugalaale ci biir waaye siira moom moo gën a kon yaatu almagaasi almagaasi ab jus ula ci siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam fiqu siira bii nga xam ne moom lañ bëgg a jàngale nag lu am solo la loo xam ne eh, mënisu koo réere ba noppi di xam diine lislaam cana mu jaadoo ndax du ndiinu yonte yàlla muhammad buñ ne dañ koo bëgg a jàngat bëgg caa amuk dégg loola xam-xam day ñëw xalaat day ñëw seetantal day ñëw ba nga mën a génne ay bind yoo xam ne si jaam bi dañ ci mën a jariñu bu baax a baax jaam dana ci mën a jubbantee pas-pasam dana ci mën a jubbantee ay jikkoom digganteem mag boppam dana ci mën a jubbantee ay jikkoom digganteem ak ay moroomam su ko defee faw nag nga jéem a yar sa bopp jéem a yar sa bakkan ci li ngay jàng ci dundinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a doon rek loo xam ne ay bind ne ay bindi neen la beneen boo xam ne lu mat a xam la mooy xam-xamu siira solo si am xam-xamu solo si am dañuy jàng siira ndax mooy jëmmu jinga xam ne moo gën a mat ci jikko moo gën a mat ci bind mooy jëmu ji nga xam ne mësi mësi sut xam koo xam ne gën na koo màgg dañuy jàng siira di jàng sangub ku mas a askano ci maam Adama alayhi salaatu salaam ni mu ko waxalee boo xam ne ana sayyidu wala di Adama yawmal qiyaama siira yonti yàlla Muhammad matuk doomu Adama da nga ko ca xamee mu gën a mat ñëpp ci nu muy jaamoo yàlla moo gën a mat ñëpp ci nu muy jëflanteeg doomi aadama yi moo gën a mat ñëpp ci ak njàmbaaram moo gën a mat ñëpp ci mbaaxam moo gën a mat ñëpp ci lewetaayam moo gën a dëddu ñëpp àddina moo gën a toroxlu ñëpp moo gën a wàcce bopp ñëpp waaye moo ëpp xikma itam ci ab wooteem dañuy jàng siira yonte yàlla muhammad mi yàlla wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azim jan jikko moo gën a màgg ju yàlla ci boppam wane ne daa màgg yàlla moo melal jikko yonti yàlla muhammad ci ne daa màgg ku mën a doon ku dul yonti yàlla muhammad yàlla melalut jikkoom ci ne daa màgg waaye moom moom yàlla daa melal jikkoom ci jikko ju màgg màgg la jikko ju yàlla melal ne daa màgg nag ku bëgg jikko ju rafet faaw nga jéem a xam jikko joojee num meloon dañuy jàng siira ndax dundug yonent yàlla Muhammad yàlla moom dong lañ mas a gis mu mu ginc maa ci dundam gi da cee giñ ne ko la amruka maa ngi waat ci sa dund gi yow Muhammad la amruka ndax dund gi ni mu ak dund gi ni mu rëyee te xam ngeen ne yàlla doo waat ci loo xam ne daa rëyut dañuy jàng siirab koo xam ne ci moom la yàlla fare kéefër ci moom la yàlla indee ak leer muy almaaxi dañuy jàng siirab koo xam ne moom lañ ma ko ubbil asamaan moom lañ mas a rañaane mu dem ci a sidratul taxa moo mas a dégg xalimay borom bi subhanahu wa taala maanaam na muy sabe muy sarirul aqlam ca keroog rañaan googee borom bi rañaane woon ko dañuy jàng siira mu aju ci jëmm joo xam ne yàlla terale ne ko mu dugg àjjana te deewagut amul kenn koo xam ne mas naa dugg àjjana te deewagut lu may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam imam Buxaari fi saxiixi ci xadisul isra wal mi'raaj na ñu dem man ànd man bama egg ci sidratul muntaha maa ngi fekk ay alwaan mooy ay wirgo yoo xam ne xaw ma ni mu taaroo mënuma koo melal ñu dugal ma àjjana suma ma udxiltul jannata bañ ma dugalee àjjana maa ngi fa fekk ay dégg nga lu lu'lu'i wa ida turaabuha nis nga xam ne maanaam suuf si nga xam ne moo nekk biir àjjana sax bi mu ñëwee da koo melal moom dugg na àjjana fekk faa toogut benn bis daa wax daal ne dugg naa àjjana ma gis fa njënde lu rëy loo xam ne ñu ngi ko liggéeyee or ma laaj ku moom lii ñu daal may am kuñ ma wax koo xam jenn waaye la ju bokk ci waa Quraysh nee na dara teewu ma faa dugg lu may xam gu ma xam boroom ni mu fiire te mooy Seydina Omar ndax bu xooloon rek dana gis aw jigéen ñu fa nekk ñoo xam ne ay soxnaam la ñuy dooni ëllëg nee na dara gàllankooruma ci dugg fa lu may xam gu ma xam boobu Omar la doon wax sax boobu Omar la doon ne ko illaa ma aalamu min xiiratika xam gi ma xam ni nga fiiree mu ne ay way waaleyka axaaru yaa rasulallah man su ma dee fiiree yow xanaa du waruma laa fiiree waaye xoolal koo xam ne yàlla saaborom borom mi ngi dund fii ci àddina mu di ko may mu dugg àjjana ba dafa gis ay njenne moom itam la yàlla wuññal sawara ba mu gis ko moom la yàlla wuññal sawara ba mu gis ko mu ne walla laqad aytu jahannama yaxtimu ba'duha ba'da xiina ra'aytumuni a da doon julli ba yàgg mu jëm ginnaaw ci biir julli gi bi mu salmalee saxaaba yi di ko laaj mu ne dañ maa wan sawara ci biir maanaam dañ ma ko indil sama ci sama kanam ma gis maanaam Euh, sawara ci boppam di di di di di moñoxoo ci biir ma gis fa ku ñuy wax amrum nu xam ngeen ne kooku mooy ki nga xam ne sayyaba sawaiba moo araamaloon yu bari yoo xam ne borom bi daf koo daganal yàlla wan ko ko ci biir julleem googu noonu mu gis sawara mooy ki nga xam yàlla bi muy wax ak moom doxalewu diggante moom kenn loolu tam moo ko wax moo ne ci arañaan moom yi yàlla wax na caag man te sama digganteeg yàlla kenn jaru fa mooy ki nga xam ne moom lay njëkka dekkil mooy njëkk dekki ëllëg yawmal qiyaam mooy borom almaqaamul mahmud bu yonente yi dee delloo nit ñi di wane seenum tiit ak seen njàqare kenn ku nekk di deltu ginnaaw ci moom la ñuy ñëw moom alayhi salaatu wasalaam mooy almaqaamul mahmud mooy borom déeg boobu yi nga xam ne mooy alkawsar mooy mooy mooy borom liwaa ul hamdi nga xam ne yonente yëpp ci suufu liwaa boobu la nekk yonente yëpp ci suufu maanaam drapeau boobu la nekk dañuy jàng siira jëmm joo xam ne yàlla daa digal ña xam ne ñooy wattu àjjana ne leen bu kenn dugg àjjana lu may nga xam ne moom mooy njëkk a dugg bu leen ubbil àjjana kenn kenn kenn lu may moom ci boppam mooy njëkka dugg ajjana moom ci moom mooy njëkk a dugg ajjana moom la ñuy njëkk a ubbil ajjana itam kooku la nuy jàng siiraam doomu aadama ji bu fekkee ne mi ngi seetantal siiraam nim rafete xool yaatuwaayu xam-xamam xool lënguk am xelam xool matuk lewetam xool jikkoom ju baax ju landi lool xool xaalam nii rek xaalam nii rek mooy nim mel nii ci kaw xool itam waxam nim jubee du werante mukk ci ne kii yàllaa ko yónni moo tax ñu bare bari dugg na ci lislaam sax te fekk dégguñu ko sax mu wax waaye dañ koo gis rek mu toog ñu xam ne kii du ab fenkat kenn ngi nit ñoom muy Abdullah ibn Salaam nee na bi ma ñëwee Madina bi yonent bi ñëwee Madina nee damaa ñëw di ko xool si damaa dégg ñu ne am na ko toog fee di waar nit ñi ma ñëw di ko seet si waaye fa la mastabantu wajahaw bi ma ne jàkk kanam gi xawal ko rek araftu anna wajahaw laysa bi waji kadab damaa wóor ne kii du fenkat xam ngeen ab fenkat daa am nu muy koy njublan daa am nooy mel waaye na bi ma ko xoolee xam naa xel ne kii xar kanam gii mu yor du xar kanamu tappalekat du xar kanamu koo xam koy njublan la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nu indil mujisa bi gën a màgg boo xam ne daf fi sax ba keroog yowmal qiyaam te mooy alquranul karim mooy ki nga xam ne jot na joxe ay xibaar yoo xam ne yu ak seegutoon la ba mu koy joxe waaye tey jii jàkkaarloo nañ ak moom amul jenn jamono joo xam ne dana jàll jàllalu may nga xam ne da nga gis luy dëggal lamboxoon ca bawoon bu yàggoon loolu day gën a yeesal ngëm yàlla doomu aadama ndax li nga jàkkaar loolu boo ko teg lu ñu wax nun noo gis ci lu yent yàlla ma xam xibaaroon loo xam ne leer nañ ñi fi noonu la def xool lim da wax naan am na ci sama xeet wi ñu ma tegul bët aw jigéen la ñuy doon ñoo xam ne dañuy dox di jeng te mën a jengal ñeneen seen bopp yi am na luñ ca laxas mu ne jum mel ne jegeenub gëléem mel ne ka asnimatil buxti kaasiyaat aariyaat solo nañ ba ba jekk waaye boo xoolee rek gis la ci seen yaram wa solo nañ ba àggal sadaqa rasulu sallallahu alayhi wa sallam tey xool fi àddina toll nga dem ci taax yi xool jigéeni jullit ñi ya ñuy sol ba àggal bay génn seeni kër boo ragalut yàlla booy xool rek di gis a ci biir te duñ ko yëgalul yaram ànduñoo kersa ca lañ ñu sol sax yent yàlla Muhammad nee na ñooñu xetuk ajana sax duñ duñ du leen xeeñ xetuk ajana sax du leen xeeñ te ajana mën nga ko soree lu dànd ko lu soree soree te teewut xeeñ dara la xeeñ waaw man mii jàng siira lan laa ci jële man mii di jàng siira lan laa ci jële xanaa ngëm bokk na ci ngëm mooy xam dundinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ngëm yàlla mooy xam lana taxoon yàlla yónni ko aw nitam la fa xewoon nga xam ko day dolli sa ngëm ku la gën a xam siira gën laa dëgër ngëm ñetteel ba mooy daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam anas nee na yonent yàlla muhammad nee na kenn ci yéen du gëm lu may daa koo gënal baayam gënal ko doomam gënal ko nit ñëpp laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain amul kenn koo xam ne sa ngëm yàlla dana wér lu may nga xam ne maa la gënal sa baay maa la gënal say doom maa la gënal nit ñëpp te nit ñëpp ñëpp a ngi ci biir moo tax ab julit ni war a bëggee yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo war a gën a ni muy bëggee lépp yàlla nee na bu fekkee ne seen bàyyi wala in kaana abaukum dee seen doom yi wa abnaukum bu dee seen bokk yi wa ixwaanukum bu dee seen soxna wa azwaajukum bu dee giir yi ngeen bokk wa ashiratukum bu dee alal yi ngeen fàggu ba àggal wa amwaalun iqtarabtumuha bu dee yaxantumuha da ngeen ragal mu lamb ak dëkkuwaay yoo xam da ngeen ragal bu ngeen dundee li yonent yàlla Muhammad doon jàngale ñu génn leen ko masaakinu tardawnaha bu dee yooyu ahabba ilaykum moo leen gënal min allahi wa rasulihi moo leen gënal wa jihaadin fi sabilihi nekk ni ku leen xaar ba ma ñëw ak jàmm fa tarabasu hatta ya'tiya allahu bi amri ndekete kon yonent yàlla Muhammad moo nu war a gënal ay baay war noo gënal ay doom war noo gënal ay bokk war noo gënal ak giir war noo gënal am yaxantu war noo gënal sax ay dëkkuwaay yoo xam ne caa dëkk te ñu ragal ne buñ dundee li ñu war a dund ñu génn ñu foofee bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag tey darajatayni am na ca boo xam ne fardun farata la te mooy bëgg yi nga xam ne dalay war a joo ci ngay topp lépp lu mu la digal ci loo xam ne lu war la bàyyi lépp loo xam ne la koo tere tamuy lu arab te nag sa xol sa dëcc guy doo yëg mukk ak xat ci bàyyi gi ngay bàyyi lu la tere te itam doo jël ak njub di ko jële fenn fu bokkul ak moom ñaareel bi maanaa fadlu la boo xam ne man duubun ilay te mooy loo xam ne day tax nga roy ko ci ay jikkoom ci nam daan jëflanteeg waa këram nam daan jëflanteeg ay bokkom nam daan jëflanteeg dégg nga ma maanaa euh, doomi aadama yi bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag bu amee jaam bu koy woote dañuy xool yi may waaj a wax su fekkee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënalu la gënalu la mbindeef yépp kon sa bëggam ko daa des ñi nga xamee ne yàlla moom nga war a gën a bëgg ci lépp noonu itam mbindeef yàlla yépp kan nga ci war a gën a bëgg muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xam ne am na keneen kum gën a bëgg ci ndawal yàlla li loola la muy tekk mooy ak bëggam yonent yàlla dafa des ñaareel ba li tax ñu koy bëgg mooy jaamu yàlla gi nga xam ne da koo taxawe kenam gën a rafete ak bataaxeel bi ko yàlla joxoon ni mu ko jot jotlee kenam gën a rafete ba nga jot ci dañ koy bëgg ngir ne yàlla da ko jox ay jikko yu rafet yu tedd ay jëf yoo xam ne mënu faa gën a rafet dañ koy bëgg ngir ne sunu gindeeku ginnaaw yàlla ci moom la ko yàlla jaarale moom daa sonn lool ci jàngal nu daa sonn lool ci jubbantinu moom daf daan muñ ay lor yu metti yu ko daan dal ngir jot li bataaxel bi nga xam ne bu dul koo nag muñ googee kon duñ ci mën a jot lépp loo xam ne day tax woote bi yàlla bi jàll moo xam alal la moo xam bakkanam la rek fekkewu ngir nag nu bëgg ko moom yonte yàlla Muhammad bëgg wóor a wóor ngir loolu mën a am faw yii dana benn maarifatu siratihi wa maarifatu kamalihi wa awsaafihi wa izamu ma jaa faw nu xam nim dunde faw nu xam nim mate ci ne ko yàlla matale mat gi nga xam ne mooy nekk ci doomu aadama mm, yàlla koo matal ay meloom nga xam ko xam itam lim indi lum mu doon ñaareel ba mooy xéewal gu rëy gii nga xam ne moom nga am te fekk moom ci moom la ko yàlla jaarale bu dul koona sallallahu ndax lislaam da nga ko gis doo ko teg bët julli yi ngay def woor yi ngay def dem ji ngay dem mag gannaaw yàlla ci moom lañ ko jële moo ko jàngale moo njëkk a julli ne sallu kama raaytumuni usalli moo aj ne xudu anni manasikakum kon lépp looy def ci lislaam rek ginnaaw yàlla ci moom nga ko jëlee keneen ku la ko mën a jàngale itam teewut te moom la ko jëlee yu metti yi nga xam ne itam yonent yàlla ma da koo dund ngir jot li lislaam ji yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ki jàngal xeet wi mooy ki leen yar te nag lu ne mu daj ko ca moo tax alquran ne laqad manna allahu ala almuminin id baata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin tey yàlla defal ñi gëm yàlla xéewal xéewal gu rëy la leen defal kañ bam yónnee ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk mu leen di jàngal ay laayaam di leen ca yar di leen xamal alxuraan ak sunna te la jiitu loolu ñu nekkoon ci ak réer gu métti la xam yonent yàlla Muhammad maqaam bi mu am ba xam noo koy wege xam itam lan nga ko war a jombale ba ko yàlla yónnee yónneegoon ak bi mu ko yónnee ba agal xam itam mucc gi ko yàlla sa borom muccal moo xam su meree la moo xam su gërëmee la moo xam bu nekkee di kaf la loolu xam gi koy xam daf lay dimbale ba doo jaxase pitaal yi ku lan moo war ci ab yonenteem lan moo jomb ci ab yonenteem lan moo dagan ci ab yonenteem xamut dara ca loola kooku mën naa xëy xëy rek askanale yonente bi alayhi sa wasalam loo xam ne si ak texee de mën a caa juddoo bu ñu xamee siira yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu danañu dimbale nu mën a sant yàlla ci xéewalam gure gi mun a defal xam du ndiinu yonente bi alayhi salatu wasalam mooy nag xam dëgg-dëgg as suura amaliya at tatbiqiya mooy dëgg-dëgg jëmu ja nga xam ne mbooleem lu yàlla santaane ci alxuraanul karim mooy ki ko doon jëfee nit ñi di jàkkaarloog moom alxuraan nee na wa anzalna ilayka dhikra ah li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim damaa wàcc ci yow alxuraan ngir nga leeral nit ñi li nga xam ne ñoom laa moom laa wàcc ci yoom moom dong la yàlla sa borom digal muy leeralal nit ñi alxuraan yàlla dana julli leen waaye waxut ñaata rakka waxut waxtu ya yàlla dana joxe leen asaka waxut ñaata mooy nisaabi xar ñaata mooy nisaabi bëy ñaata mooy nisaabi nag ñaata mooy nisaabi gëléem loolu ko yàlla moom moo ñëw jàngale ko ci ak leeralam ibnul jawzi rahimahullahu taala nee na wa aslul usulil ilm wa anfaul ulumi an nadaru fi siyari rasuli sallallahu alayhi wa wa ashaabihi radiallahu taala anhum moo ne cosaani la ca gën a cosaanu mooy xam-xam xam-xam yi ba ca ëpp njariñ mooy xam dundiinu yonent bi alayhi salaatu salaam xam itam dundiinu ay saxaabaam mbokki jurit yi baraana koo xam ne tey ma ngay jël koo xam ne daa rëy ci xolom mu di ko réyal ba sax léeg-léeg mu di ko gam-gam léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa sax mu defee ne la mu indi moo gën a rëy la yonti yàlla Muhammad indi wala mu defee ne sax kooku nam doon dundee moo gën a maanaa gën a jekk na yonte bi doon dundee fekk dara warulu ko lu may ñàkk gum ñàkk xam dundinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bare bëree bëri jox ñu yitte jàngale lu jëm ci wàllu siira Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullahu taala day wax ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa huwa almizanu akbar fa alayhi tu'radu al ashyaa ala xuluqihi wa siratihi wa fa maa waafaqaha fa huwa alxaq wa maa fa huwa albaatil mu ne yonent yàlla Muhammad mooy nattukaay bi jikko yi ci ay jikkoom lañ koy gaaral bu dëppoo ñu jël doxaliin yi ci lañ koy gaaral bu dëppoo ñu jël njub goo xam ne da caa nekkoon ñu koy natt ci njubug sallallahu alayhi wasallam bu jëppoo ak nam doon dundee loola dëgg la bu wëtee ak moom neen la dundiinam nattukaay la boo xam ne ci la natt siyaar yëpp képp ku ñuy nettalil ak dund rek jëlal aw dundinam nga natt ko ci dundu yonent bi alayhi salaatu salaam jëpp wax mbaa jëpp jëf mbaa bépp comportement boo xam ne daa wuuteeg na yonent bi waxee mbaa nam jëfee mbaa na mu comporté woo loola la muy tekki mooy loolu ak nen la dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leeral gu bàyyi ko ci koo xam ne lu mu wax ci boroomam la bàyyi ko wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa dañuy jàng siira ngir amuk dégg ci téere bi yàlla bi ndax laa yu bare bëree bëree bëri ci alxuraan daa am lu xew mu soog a wàcc wàccee ba àggal itam yonent yàlla Muhammad da koo jëfee ca nag ko yàlla sante loolu moo tax siira day leeral aaye alxuraan yi koo xam ne tey siira jàngoo ko wala koo bëgg génne ci diine ji doo mën a dégg alxuraanul karim doo ko mën a dégg ndax bu ñu la laajoon rek qad sami allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah lana ko taxa wàcc ndegam yow bëggoo dellu ci siira doo mën a xam ne ci ku ñuy wax xawlatu bintu saala bala wàcc borom këram nekkoon aw sumnu saamit nangam ji ak nangam ji moo taxoon mu wàcc doo ko mën a xam doo mën a xam itam loola ba mu wàccee nan la ko yonti yàlla Muhammad jëfee ak saxaaba yi naka lañ ko jëfee moo tax alimaamu Suyuti rahimahullahu taala day wax ne walaw araada an yasrifa hammahu li maarifati maani maani min duni maarifati minhu li dalika ay li sirati rasuli la xasala min algalati ala wa ala wa ala muradillahi min kalaami shayun kathir nee bu amoon koo xam ne dane sojjet rek jug jëliitam jépp ci bëgg xam maanaam maanaam alquran te jéemut a xam dundinu yonent Muhammad dana juuma juuma juum njuumte yoo xam ne di sut ko ma kenn mënu ko teg dañuy jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañuy xam ne mooy siirab ki nga xam ne moom la yàlla yónni mu war a génn nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci lan ak leer génn leen ci ay gëm-gëm yoo xam ne ay xoraafaat la yóbbu leen ci li nga xam ne mooy leeruk tawxiid yaa ayuha nabiyu inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa daa ila allahi bi idni wa sirajan munira lii leer na nañ yow ku ñu soloo ki man sa borom de maa la yónni ngay kuy seede di kuy bégle di kuy xuppe di woote jëme ci yàlla ci ndigalul borom bi waaye nekk làmp boo xam ne buy leeral la dañuy jàng siira ngir def nuy dëgëral sunu ngëm ndegam yàlla mooy nett li yonent yàlla muhammad ña ko jiitu woon naan ko wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nuthabitu bi fuaadak xisa mm, ah, yii ma lay nettali ci xibaar yi yonent yi la jiitu woon dama cay jublu sa xol bi dëgër ah moom la eh, yàlla moom la bëgg xolum dëgër bu dee xolub dégg nga sangu anbiyaaw yi mooy dolleeku ci dégg gu muy dégg xisa yu ko yàllay nettali ca yonante ya ko jiitu woon nun day kon suñuy xol dolleeku ak ngëm yàlla ci buñ déggee nuy nettali dundug yonante bi sallallahu alayhi wasallam min baabi awla yonte yàlla Muhammad koo xam ne dañ koy roy rek buñ nekkee ci jàmm ak salaam waaye dañ koo war a roy itam buñ nekkee ci lan ci ay tartar ndax doomu aadama daa aajowoo ku muy roy bu nekkee ci ay xat-xat aajowoo ko xam ne mooy gën a metti sax maanaam ku muy roy bu nekkee ci ay euh, yomb-yomb moo tax ñu bëree bari ci waroom xam-xam yi xeetu yi ku ci masaa nekk ci ay xat-xat masaa nekk ci ay tartar lu metti métti boo xalaatee ne yont yàlla xam moo la ci jiitu woon te moo la ci a mën a nekk loola yàlla ndax mooy tax nu xam ko suñ ko xamee bëgg giñ ko bëggoon day yokk war ma dañ ko joxoon day yokk weg dañ ko joxoon day yokk nga xam ne bëgg gi ñu koy bëgg ci xam-xam lay lan lay lalu waaye du ajo rek ci aatifa muy ay sentiment ni nga xam ne xeet wu bare bari wala xeet wi ñu bëree bari dañoo bëgg solaas ci sentiment lañ ko bëgg rek bu dee Muhammad rek ñu daal di fett suuf waaw yaa rasulallah gis nga jigéen ñi daal tàmbali eh, di di kii di kii ndax dañ ko bëgg aatifatan maanaam ci ay sentiment lañ ko bëggee mais mais bëgg dañu koo xam ne si ci misaal dañuy tudd sallallahu lam yoroon ci or lépp mu joxe ko dégg nga waaye bopp ba sax mën na am muuruwut mën naa am sax man nga xeesal man sax mën na am xeesal bëgg na ko ne aatifatan maanaam ci wàllu sentiment waaye bëgg ko an ilmin xam na bëgg gi tegul ci xam-xam te bëgg sax yoo xamee ne teguwul ci xam-xam rek lu ne mën na koo jur moo tax ñi nga xam ne dañoo bëgg sallallahu alayhi wasallam te ko ci xam-xam lépp loo xam ne yonte yàlla man de musu koo def ñoom buñ ko defut ñu bëgg yonte yàlla man ci wàllu sentiment dañ naan ñi bëgguñu ko ñii xam nga ne buñ bëggoon yonte bi danañ nangam dañ def nangam te fekk bëgg gi dafa war a tegu lan ci ak ci ak xam mooy kii nga xam ne nga koo bëgg nga xool lan la doon def moom lan la doon def lan la doon def saxaabaam ya lan lañ doon def te ñoo la ko gën a bëgg foofu saxaaba yi ñoo gën a bëgg ñëpp su laa waaye ndax ñoom lii nga xam ne yow moom nga bëgg a jël def ko am nattukaay ci lii day ku ko defut bëgg ko yonent yàlla Muhammad xanaa ko ñoom bëgguñu ko kon jàng gi ni jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf nuy jural nu xam ko te buñ ko xamee xam-xam bi day tegu ci lu leer ba du tegu rek maanaa ci euh, borom barrière borom barrière baag borom barrière ba waaw borom xubba bu bu verte ba yooyu yooyu rekk ci la ñuy nekk di wax waaw barrière ba kañ la fa ñëw kañ lañ fa def barrière ba kañ la fa kañ lañ ko fa def xuba ba kañ lañ ko fa def yooyu du ñuy sukkandiku jëmm jooju tëdd foofu ngay xam mooy kan fan la tegoon boroomam naka la daan wootee naka la daan dundee ki soxnaam nu daan du ku njabootam nu daan du dundee doomi aadama yi xam googu daf lay dimbale moo tax ñu bëree bëri ci sunu mbokki sénégalais yi bu ñu demee Madina léeg ñu def ay xuusee xuuse yoo xam ne kenn santu leen ko ndax bëgg dafa teguwul ci kaw ci kaw lan xam-xam su ko xam day ñëw xabru bu yonent yàlla Muhammad la mu laaj ci ay teggin ci def rab diglu bañ a yëkkati sa kàddu laa bu aswaatakum defee ne ba muy dund dong la de ba bu muy bi bi nga xamee ne mi ngi génn àdduna itam kadalika or ma dem amoon ba muy dund moom la amaat ba léegi moo tax Omar mas naa dégg ku yëkkati kàddoom mu xool xool daa ne hmm, billaay bu ma leen bu fekkoon ne du ngeen ay gan ci dëkk bi naa leen duma duma yoo xam ne si ngeen di tey ngeen koy mujj a def foofu lim boo fa duggee su fekkee da nga koo bëggee moom yonent Yàlla Muhammad ci wàllu sentiment wallu yëg-yëg rek nga bëgg demee te teguwul ci xam-xam su baa mën naa jur am njaxas moo xam ne la ngay def sax ku ko am ku amee kenn ku la ko jéeme tere sax mbaa mu ci jéem wax dara sax da ngay mujj maanaam mu doon aw tàngoor wu metti woo xam ne lépp loolu lay jur ndax lenn lu ne daa war a tegu ci xam-xam dafa war a tegu itam ci roy ko moom alayhi salaatu wasalaam ndax roy ko dong moo di ak njub wa in tutiuhu tahtadu <laughs> waaw Seydina Imam Malik rahimahullahu taala a jëmu jooju ak tënk woon ci njubu sallallahu alayhi waaye dane ko ndax mënumaa armale fii mu ne ko armale fan mu ne ko digg diggante sul xulayfa ak fii soriwut mu ne ko dama ne borom bi nee na fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibum fitna ne ko fitna jën moo gën a rëy ngay armale foo xam ne ki yàlla yéen musu fa armale jën fitna gën a rëy lool moom imam malik ci wàllu attaqayyudu bi sunnati nam ca deme woon sax dafa doy waar tënk gu méttee métti ñoom ñi nga xam ne ñoom la doo roy itam tënk gu méttee métti mosu ñoo nangu mukk kenn di def dara dara dara te fekk jëlewu ko ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi nuy leeral ci alxuraan ne roy yonte yàlla muhammad diine la lu ñuy jaamoo borom bi la subhanahu wa moo tax yow boo jàngee ba xam na la doon dundee nga fas yéene dunde noona nag xamal ne maanaa coow lu rëy dana la topp lu tax mu lay topp yéen yàlla xam ne ba yàlla yónnee ndeysaan ba jibril ñëwal ko fekk ko ca xuntima mu jëlee ca am tiit ba soxna Xadija ndeysaan ne ko dama lay yóbbu ci waraqatu Nawfal waraqata ne ko eh, looy gis mu wax ko li muy gis mu ne ko ah lii lay ñëwal de mooy la doon ñëwal kan Isa daa ne ko aka neexoon bu la yàlla yónni fekk may ndaw ba man laa jàppale ci sa woote bi waxtu wala saw nit di génne mu ne ko awa muxrijiyahum ndax dañ may génne mu ne ko dañuy génne kay waaye ba mu ne ko dañuy génne mu ci rek dane ko amul jenn jëmm ju indi lu mel ne lii ngay indi nii amul jenn jëmm ju koy indi ci aw nit lu may des ne ko noonu te buñ ko noonu ma nañ ko génne moo tax su ngeen seetloo koo xam daa bëgg tënku rek rek rek rek yam ci ci dundiinu yonte yàlla Muhammad rek rek du ci yax rax dara dara dara dara dara faw nit ñi nañ ko noonu te buñ ko noonoo duñ bàyyi noonu gi noonu rek waaye sosol koog rambaaje koog lu ne des na ko def bu ngeen seetloo ñi nga xam ne ñoo gën a bëgg a tënku ñoo gën a bëgg a tënku ci njàngalem yonte yàlla Muhammad da gis ne ñoom lañ gën a jabulise waxtu wu nekk ña ngay wane seeni nataal ku ci am as njuum te tuuti tuuti njuum te moom maanaa bay boo nga xam ne des na ko denc saa buñ bëggee ñaawal sab der loola ñuy génne te kat mbir yi wartu woon a noonu jullit ñépp ñoo waroon a ànd royondoo kenn loolu mooy tax du ñu wute ci li ñuy def muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg nit ne Euh, da ngeen di woote na ngeen koo bëgg a xam ngeen ne ñi leen fi jiitu ñoo leen ko gën a roy waaw ñooñu ñu fi jiitu ñi leen fi jiitu nag ñoom muy saxaaba yi xanaa ba ñuy wax aw mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a jëfe lislaam ñoo gën a mag ñëpp muy mooy saxaaba yi ñoom ñooy mag ñi di ñeneen ñu dul ñoom boo leen gam-gam leeg saxaaba yi gis ne ñoom duñu doon ay mag duñu doon ay mag ndax ñu dul ay junni at junni at seen diggante ñoom ay junni at jaar na fi ñooña wax dëgg yàlla ñooy mag ña nag moo tax koo xam ne ngaa bëgg a jël abu Aboubacar teg ko sa kanam wala nga jël Seydina Omar teg ko ci sa kanam léeg-léeg mënuñu laa sànni baati tuuma te fekk nag war yee wër mbir yee wër woon demee noonu ndax Muhammad bi muy dund sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar bu xëyee gis ko Seydina Omar bu xëyee gis ko lu may dafa am gànt. kon ñooñu ñu wax ñu wax lañ ñoom nañ doon dundee nga xam ne moo gën a jege dundinu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nga nga roy loola mooy gën a yey donte ku baax ko nekk xam nañ ne la doonoon yitteem wala la waroon a doon yitteem mooy roy yonent sallallahu alayhi wasallam waaye ànd ak loolu lépp yàlla li mu wax ci alxuraan mooy roy leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xam ne ñoo toppoon ci seen ginnaaw ci rafetal wa saabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaari walladina tabawu bi ihsaan topp gi de ànd ak condition mooy ihsaan mooy doo yokk dara doo wàññi dara nañ doon dund rek ngay dundee nañ doon dund rek ngay yi nga xam ne ay usul la te kenn ku ne war koo xam gannaaw boo xamee ne xam nga sa boroom xam diineem xam nga ñetti mbir yi xam sa boroom ci wéetal ko xam sa diine ba doo ci dugal lu ci bokkut waaye xam itam sab yonante booy xam sab yonante ci gar ana nga koy xamee xam aw askanam ba gis ne aw askanam moo gën a tedd askan yëpp askan wu gën a tedd la ko yàlla sa borom tàndal faaw itam nga xam at mim judd faaw itam nga xam bam gàddaayee fan la jëm ak lam daj ci wooteem bi ni mu doon dundee itam bis bu nekk na mu doon dundee diirub ñaar fukki at ak ñett muy vingt trois cent yooyu ni mu ci dunde yëpp faaw nga xam nga xamaal itam ci lan la ko yàlla saa borom yónni yonent yàlla dañ ko yónni ci wéetal yàlla jox ko joo xam ne daa ànd ak ay ndigal daa ànd yu ñuy bàyyi borom bi nee na yërmaande la ci doomi aadama yi daf leen a daf leen daf leen war a génne ci ay lëndam yi bokkaale lëndam yi kéefar lëndam yi ak réer bu leen ci leeru xam-xam ak leeru ngëm yàlla mbokk jullit yi bu dee xisatul anbiya borom bi nee na da ngeen caa war a jële ay bind kon famin baabi awla siira yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaabi ndekum yàlla ci yonante yi la koy wax fa kayfa ki nga xam ne moo gën ci yonante yi mbokki jullit yi xam dundug yonente bi sallallahu alayhi wa mënul ñàkk ndax mënoo taxe mukk du ci àddina du ci àllaaxira lu may danga koo jële ci am njàngaleem bala ngaa mën a xam lu baax ak lu baaxut teqantal ko ci moom rek nga ko mën a jële mu jàngal la ko ca na ko yàlla sa borom bëggee bala ngaa am ngërëmul yàlla day fekk nga jaare ko ci yonente yi lu baax ci ay jëf lu baax ci ay wax lu baax ci ay jikko ma ngay bàyyi ko ci seen njub ñoom yonente yooyu te ka jëgën tedd gën caa baax mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu des buñ jàngee siira ba xam ko lan moo war lanu war kat mooy lan xam ci dundu yonente yàlla ñu jàngale waat ko waxuma rek nuy jàng nii nii la meloon nangam ak nangam li ci gën a bëri doomi aadama yi li gën a itteel sax ci dundu sallallahu alayhi wa sallam mooy rek ya nga xam ne ay xar baax la moo moom la loxo yee génne woon am ndox moo doxloo woon nangam waaye nim dunde woon ndax yow noonu ngay dunde loolu léeg-léeg du leen itteel moo tax léeg-léeg bu ñu wooyee doomi aadama yi léeg-léeg ci yenn jataay yi nga xam ne dañoo wax ne yonent bi lañu fàttaliku dañu lu ne la ñuy wax ba mu des dundinam lu ne la ñuy wax ba mu des dundinam da ngay xool mbooloo moo xam ne tey dañoo toog nee na ñooy yonti yàlla lañ bëgg fàttaliku ak juddoom ñu nekk ci yeneen di wax ci yeneen yoo xam ne joti wut ak laa laalante wut ak dara ak dundu yonti yàlla Muhammad sallallahu kenn du fa jëlee mukk mukk mukk mukk ak gën a xam nan ngay roy sallallahu de wasallam déedéet xam nga li ñuy wax nii duñ ci sukkandiku li ñuy jëf lañuy ñuy sukkandiku nun ci réew mi lañ dëkk xam nañ li xew man mas na maa toog genn guddi goo xam ne damaa amoon yéene ma jàngale siiraam la ko dale ca bopp ba ba fajar bi ma toogee ñu indi aw ñam ñam yu am solo sax laa doon wax yàqu lama ma doon wax lépp yàqu ndax day mel na nit ñi la leen fa indi woon dëggantaan mooy ñam yooyu noonu ma wax waa ji ma doon enregistré ma ne ko fajal fayal rajo bi fay ko lii may waaj a wax du lu ñuy enregistré moom mii ma fi indi moom laay waxal ñu ma déet pour déet ma ne ko luy tee ma daa wax ne ko Kisra Kaysar tudd naa leen léegi ci jotaay bi ñoom mas nañoo yilif addina tey jii ku jëloon dàllu Kisra mbaa Kaysar di ko jaay doo ci am ñaari dërëm moom ci boppam mu jug daan ne amal leen ma fii yéen ñi nga xam ne ay waxtaan wi indiwu leen naawal leen ñu naaw ndegam lu ñu mën a naaw lañ mu toog di ma déglu keroog maa ngi fàttaliku jataay boo xam ne moom laa mos toog di ci wax di ci wax ba ba ba lu mat ay ñeenti waxtu. ñeent man ñeenti waxtu te booba rek bëgg gu ma bëggoon doomi aadama yi man cee xam dundug yonte bi alayhi salaam mais nit ñi léeg-léeg loolu du leen itteel toog di diglu dundug yonte bi ñu koy jàngale fa du leen du leen itteel dëgg-dëgg leen gën a itteel ay lekk lay ak ay naana yu mel noonu moo tax mbir yi du li ñuy wax li ñuy jëf la doomu aadama moom laa nax mukk ci la muy wax waaye xool li muy jëf lan la ku ma ku bëgg a xam yonte yàlla Muhammad ni mu ni mu dundee doo bàyyi benn benn menn benn bis ci atum lëmm nga bëgg caa jàngale yonte yàlla daa war a sax sapp ci jàkke yi ñi toog gannaaw julli yi di ko jàngal nit ñi ñu xam kan mooy seenub yonent naka la doon dundeeg soxna Fatima nu mu doon doon soxna Khadija soxna Roqaya nu mu doon dundeeg maanaam Aboubacar ak Omar nu mu doon dugg ci xare yi ñu koy xam mu mu fees dell ci xoli doomi adama yi ñu xam ay jikkoom xam ay melokaanam lépp muy leer waxtu wu nekk. koo xam ne noo koy fàttee ba di ko fàttaliku koo xam ne bu ñu noo dañ naan ashhadu anna muhammad rasulullah koo xam ne booy taayee da nga naan ashhadu anna muhammad rasulullah kooku noo koy fàttee kooku yow ni ngay dundee sax da cee war a feeñ booy julli aw da nga koy roy booy woor danga koy roy booy dem màkka danga koy roy kooku waroo koo fàtte ci genn wet ba naan da nga koy fàttaliku wala boo ko dee fàttalikoo nga fàttalikoo nam doon fàttalikoo moom ndax mas naa xëy woor ñu laaj ko lu tax ngay woor mu ne ndax bis bii may woor ni muy altine mooy bis bi nga xam ne ci laa juddu kon moom nam def ca bis boobee su fekkee dañ koo bëgg a roy nan ko def ca nam nam def donte da xam ne am na ñoo xam ne yéene jur rafet lañ am ak bëgg lañ am loolu dana am am na loolu kenn du ko werante waaye nag li nga xam ne moom la nu yàlla sa borom sant mooy moom la nuy xooloo moom moom lan nuy xoolloo lam def nu def ko lam defut nu bàyyi foofu la tiyaa ba ja nekk kon su ku ci xam lu siira ba xam ko day jaaru ci yow nga ciy woote xam na yonte bi jaare woon ba doomi aadama yu bëree bëree bëri nekkoon ay yéefar muy dox ndànk di dox ndànk ba ñu bëri dugg ci lislaam yonte mu ëpp na jaax ci ab wooteem xam-xamu siira xam-xam bu yaatoo yaatu la boo xam ne xam-xami sharia yépp da caa nekk jëlal wàllu pas-pas ku bëgg a xam dëgg dëgg dëgg pas-pas da xool ne yonent yàlla moo joxe woon yitte wàllu pas-pas ni mu joxe woon dëgg-dëgg ak jaam yàlla yitte ni mu tàmbalee ci wéetal yàlla wooteem bépp bépp bépp daanaka ci wéetal yàlla la la ko jeexal lu néew moo ci dellu ci ay ahkaam fukki at ñett yëpp makka mi ngi woote ci lan laa ilaha illallah kon wàllu aqida soo ko soo ko jubloo xam demal nga dem ci dundug yonent bi boo xamee bëgg xam ay ahkaam wàllu ay atte demal nga xool ni mu dundee léeg nit ñëw laaj ko nangam yàlla ñëw nekkoon nangam lañ ciy def yasalunaka maada yunfiquna qul ma anfaqtum min xayrin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masakin wa bni sabil wa ma tafalu min xayrin fa inna allah bi alim léeg-léeg mu ne ko yasalunaka an il xamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima léeg-léeg mu ne ko wa yasalunaka maada yanfa'un qul il afwa wa yasalunaka an il yataama qul islahu lahum xayr wa yasalunaka an il mahidi qul huwa ada ñu koy laaj muy tontu nga xam ne ay atte lay tontu yu leer boo demee ci siira yonte yàlla Muhammad da koy fekk ay atte yu xam ne yu leer nañ la soo soxlaa wàllu ay jikko ak wàllu comportement nga xool moom aw dundinam ak ay saxaabaam aw dundiinam ak ay soxnaam aw dundiinam ak ay surgaam ay dund aw dundiinam sax ak yahudi yi nga xam ne bokkut ak ñoom pos-pos nga fekk muy dundi wax ne wu jekk la boo bëggee xam nan la ñuy wootee ci yàlla xool ko moom naka la doon wootee ci borom bi subhanahu wa taala kon jataay bi nga xam ne mooy nekk sunu kanam insha allahu taala lañ cay jàng mooy lan moo tax nuy jàng siira limaada nadru limaada nadrusu fiqha siira fiqha siira bii ñu bëgg ubbi nii lan moo tax ñu koy jàng loola mooy nekk sunu jataay bee di ñëw insha allahu taala ñaan yàlla mu defal nu dégg ak topp waaye maa ngi soñña itam di soññ sama bopp di wax na yàlla mi amul kumba xam ne ne siira maanaa réere ko du mën a ànd mukk ak njub réere du ndiinu yonte yàlla mu muhammad du mën a ànd mukk mukk mukk ak bànneexu ci moom nim doon dunde ci wetuk wéetal yàlla ni mu doon dunde ci wetuk jikko ju rafet ni mu doon dunde ak saxaaba ya loolu ngir nga mën koo xam ba di ko dund day fekk nga xam moom na mu doon dundee képp ku ñuy jàngale ci kaw suuf si jàngale muhammad moo ci gën a yey sallallahu alayhi wa sallam képp ku ñu won nit ñi wane muhammad a ci gën a yey sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy moom kott koo xam ne moo gën ci bindeefi yàlla yépp loolu ñëpp dëppoo nañ ci anbiyaaw li ñuy baax baax baax moo nekk ca bopp ba yonente yi ñoom nattewul natteeb la wuñ ne yonente yàlla moo ji ñëpp koo xam ne nag moo gën a baax ñëpp koo xam ne moo gën a ragal yàlla ñëpp koo xam ne koo xam ne moo gën a tegu ci yoon kooka buñ ko tegee ci kanam nit ñi ñu bëggee nit ñi tegu ci aw yoon bëgg dundin wu jub woo xam du ànd ak dara dara lu ko meji kon faaw ñu jàngale yonent bi sallallahu alayhi waaye su fekkee dañoo jublu a ah, dajale doomi aadama yi di leen jàngal ñeneen ñu bokkut ko def su wasallam itam gis ngeen li xew rek man am naa maam man mii mi di wax am naa maam te maam ju baax la waaye su ma toogoon fii naan dama leen jàngal saa maam ngeen jug dem seen yoon waaw am naa maam ju baax rahmatullahi alayhi du ma xam maanaa dundiinam ma xam ne kii ku baax la waaye muhammad moo ko gën a baax lu mu am ci mbaax rek ma nga jóge ca kan njàngale muhammad sallallahu alayhi wasallam kon su ma toogee naa jàngale muhammad su alayhi wasallam su fekkee damaa toog de jàngale saa maam yow mii nga toog a jàngale sa maam kee toog jàngale maam kon kon ku ñuy jàngal maam yi ñëpp muy alayhi salaatu salaam nañ jàngale siira nañ ko jàngal nit ñi xamal leen ko ndax ñu mën a dund dundiinam ñu mën a am ci moom bànneex bu xam du yem rek ci dégg nañ ñu tudd ko rek waaye dañu am banneex ci di ko di jëfee lim doon jëf bala ngaa am lu neex mooy mooy nga jullee ni mu doon jullee mooy nga woore ni mu doon woore mooy nga def ma deme màkka nam doon deme màkka ca nam doon jaamoo yàlla lépp loo wuuteeg moom mu rëy fi yow nga yëg ne ah juum naa looy waaj a def nga laaj ba xam nu mu ko defee woon loola kat bokk na lay dimbale yàlla ñu yàlla defal ak dégg defal nu ak topp booleen ci ñi nga xam ne ëllëg yonent yàlla muhammad danañ ko fekk ci déggam boobee ñuy wax alkawsar wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin